والبكاء على فتاة الأموات تبكي على عليك السماوات حبيبي وحنا يوني تبقم نينكو تنك تنيت الإيمان بالتوحيد والإسلام بالفقه والإحسان بالتصوف نيت يونك دانك موي موي موي موي كنو الإسلامي ndax الإيمان بالتوحيد والإسلام بالفقه mooy tawxiid mooy pas-pas bi nga yor waaye nag al islam nag mooy pas-pas boobu nag fokk nga jëfe ko waaye nag jëf ji est ce que nag jëf ji yàlla bëgg nag mooy jëf ji rafet mooy moo tax mu nekk al ihsan moo tax boo xoolee ci alquran inna allazina amanu wa amilu saalihaati li ëpp ci alquran inna allazina amanu wa amilu saalihaati al bi njëkk inna allazina amanu al iman ngoog wa amilu al islam ngoog wa amilu mooy jëf asaliyaat mooy al ihsaan ñett yéen mu xamal leen nag ci ñett yi ngeen dox gannaaw bi mu leen tegee nag ci xam-xam teg leen ci li ñu tuddee nag lan mooy ak murit saarix mooy nag dégg ndigal waaye bëgg sëb sëriñ ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam annabiyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim la yàlla wax daf na jullit yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne leen gënal seen bopp te fu loolu fokk mu am waaye fexe tim lépp looy def lu ne nga ànd ceeg ndigal sëriñ bi waaye itam gannaaw loolu nag mooy nag li lay sëriñ bi digle doo am lenn loo ci tànn nga xam ne nag mag ñi ci sart yooyu la leen wax waaye nag jox leen nag garanti na leen nag bu ngeen ma defee lee na saaba yi defaloon yonent bi alayhi salaatu salaam ma defal leen la yonent defaloon saaba yi waaye gis nañ ne wax dëgg yàlla bu fekkee nañuy jàngan mag ñi dañu gis ne mag ñi àggan nañ ci martaba yoo xam ne sax ci ci média laay waxee da gis ñu dégg ci ñoo xam ne àgg nañ ci martaw yoo xam ne sax dégguñ ci saaba yu ñu ci àgg te loolu loola nag du ñu jaaxal ndax ab yónent sax yàlla mën naa may ku dul ab yónent loo xam ne mayu ko ko loolu nañ dem ci yonent yàlla Moussa ak Xadir du dëgg Moussa bokkoon ci ulul asmi yàlla wàcce ci moom tawraat mu dib yónent loolu lépp dajee ni ci moom yàlla di wax ak moom waaye teewul yàlla may na Xadir loo xam ne te Xadir dub yónent lépp ci borom xam-xam dañ ne kon loole buñ ne ci mag ñi am nañ may yoo xam ne te say buñ doon comparé saaba yi duñ leen comparé sax ndax ñoom ñoo doon seen royukaay waaye mën nañ ci tudd ay mag ñoo xam dañ gis ne ay dara yoo xam ne àgg nañ ci yooye xëy na doo ko fekk ci saaba yi wala boog bu dee xëy am na ci saaba yi xëy na man sama xam-xam àggu ci waaye daal ala kulli haal man li ma bëgg a wax boobu du sax ne dañuy comparé waaye du ñu bëgg a wax ne sëñ mag moom li mu leen doon wax lu wér la parce que dafa am ndigal ci woote ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla def nag innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiiran waaye nag wa daa'iyan ilallaahi bi iznihi wa daa'iyan ilallaahi bi iznihi moo jafe te sëñ Tuubaa moom la am ci yonent bi waaye moom la am ci boroomam moo tax nag mag ñi mu yar leen ci jaamu yàlla ñi mel ñi meloon meluwaan melokaan woo xam ne wu yéeme ndax li ñu tuddee firsaanu layli ñoo xam ne dañ daan fanaanoo di di naafila kaamil alxuraan nga xam ne ku mel ne Maam Mor Jaara xam ko nga xam ne téeméeri rakk sëñ Daaru Asan Njaay sëñ boobu mbay ñaanaate moom ñeenti kaamil bi ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti rakk la ko daan séddale euh, sëñ ma Yaasin Ummi Jeng sëñ jiiri waa daan sugu mag ñi ñu koo ci tudd rek ñi ci ëpp ba ci sax ma Masamba Mbàkke keroog bi mu gisee ci wax ko sëñ Tuubaa ne kaanu isal ar arqa sitran za halakin xaamoo siraan li ahyaa i tujannaati keroog lu commencé moom commencé di di taxawal julli guddi nga xam ne ñaar fukki rakk ladaan daan séddale kaamil bu tim ci loolu ci wàllu jàmm yàlla waaye bu dee ci wàllu sàmm fiñ ci àggoon tim lu yéeme maanaam ragal yàlla gi nekkoon ti ñoom ak sàmm gi defe naa doy na ci rek wax naa ne euh, sëñ Mat Lamin Gay euh, da daan wax ne da wax ne fa ammaa man saqulat mawaaziinuhu fa ulaa'ika humul muflihuun wa ammaa man xafat la fa ulaa'ika allaziina xasiruu anfusahum jooju ay yàlla wax da koo xam ne sab balance diis na boo ëllëgee yowmal qiyaam ci yiw yow da nga ko texe nga bu sa balance nag nekke nekke safaan ba maa musiba lay doon ci yow daal mu ne man danaa fexe rek ba balance bi nga xam ne moom ci li ñuy def yiw bu mu ci mënta def dara tamit waaye balance bi nga xam ne ci li ñuy def musiba yi moom danaa ko neenal. kon xam naa. ma tax foofu rek def sëñ Saliou su ko defee daf mel ni julli gi. jërëjëf waaw bu ñu julli ba pare te ñëw su ko defee ñuy tënk foofu rek ñu jégalu baax.